jërë ngeen jëf ami téléspectateur people 221 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte ci ñëwaat waaye di ñaanal sunu kilifa diine ak sunu kilifa day yi di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na sunu borom doole jàmm tey nag ma dalal koo xamante ne dootu ko présenté ci réew mi ak ci bitim réew mu di maman Soda Bousso international nekk suma yaay vraiment nekk nit ku baax nit ku disponible aussi vraiment tey nangul na ma loo xamante ni bariwul ñu mu koy nangul mais nag c'est parce que doomam la euh, maman dañ lay bàyyi nga nuyoo ñu fii ci kër gi. <laughs> jërëjëf jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu bu baax. di mm-hmm. kontaan ci yow bu baax di nuyu directeur bi. fay di xale bu am jom. Mm-hmm. man lu baax dëkk ci réew mi fexe ba incarné boppam. Mm-hmm. di daan dooleem di xale bu am jom. waaw man di sama njaboot maa ngi ko nuyu bu baax yal na yàlla dooleel seen site bi fi mu bëgg egg. amiin yal na fa egg ci daraja yi Seydina Mohamed. allahumma allahumma maman fi muy njëkkee mooy euh, dañu gis ni maman bu Bousso mu nekk benn benn personne boo xamante ni euh, amul fenn sens interdit. Mm. du ma ne ci aar bi mais fépp laay wax. waaw xam nga sens interdit moom nit mu koy itool boppam rek. Mhm. ndax ñun ñëpp ay nawle la te nawle sa nawle boo nawlenteel. Mhm. ngir ñaan ngeen nawlenteel mun na bañ am sens interdit. Mhm. ci loo xam ne nit mooy seq ak nawlem loo xam ne daal. wàccoog moom. nit day wàccoog boppam. boo wàccoog sa bopp nag. mën ngaa seq ak sa nawle yëpp jàmm. waaw ku seq ak ñëpp jàmm nag mën naa dem fépp. Euh, ci biir seq ñëpp jàmm boobu yan yan relation nga am ak say nit mun naa ci citer ku ci mel ni Pape Cheikh Diallo. waaye ñun samay rakk lan ñoom ñëpp samay njaboot lañu. Mhm. jàmm rek laa seq ak ñoom. Mhm. samay yoo xam ne jàmm laa seq ak ñoom. Mhm. et eh, man tamit ci benn côté man it aw ma benn problème. wax dëgg yàlla nit bu comprendre nit laa. nit bu baax laa. aussi xaruma kenn waxuma ko nit a gën a xam boppam. waaye defe naa man ñëpp sama xarit lañu. dëgg la te ñëpp laa jëflanteel te loolu yàlla bu mu wàññeeku. yàlla na yokk yàlla na yokk. waaw di naan ñëpp nit mën na am ñëpp. waaye ko jëlay jàpp ba nga am ñëpp yow yaa koy defanteeg ñoom. dëgg la moo tax koo ci jëflanteel mu jàpp la. dëgg la keneen ka nga jëflanteel mu jàpp la. Mhm. loolu wala nga am ñëpp. dëgg la waaw nit yi da ciy jiitu. dëgg la waaw nit yi da ciy bokk. dëgg la wax lu baax da cee bokk. dëgg la discrétion day bokk ci loolu. dëgg la ak defar. dëgg la waaw. ci biir wax ju baax jooju laa ñëw ñu gis ni bu njëkkaan euh, géwal taxawaayam ci société bi mooy wax lu baax. fekk luy yàq mu koy defar comme mën naa ci jël exemple ay sooda maam suñu ñoom nga fekk jege woon leen par rapport ak li xew tey waaw li xew tey dara ab géwal daal muy kii géwal mu wax géwal na gënoon mooy réconcilier mm-hmm. pour faire la réconciliation mm-hmm. lépp lu yàqu nga defar mm-hmm. réew toj nga jug defar am loo xam ne nga war ci jug toog ci sa tànk ba mu sedd te kenn bañ koo xam boole nit ñi suude nit ñi loolu mooy rôle géwél te géwél wax lu baax rek moo ko jóg. Mhm. géwél bu fi jógee wax la leen itam du yoon. Mhm. déedéet. Mhm. muy man pe. man wax lu baax rek laa war a def. dëgg la waaw keneen ak keneen ak keneen ak keneen ndax réew mi ñoo ko moom. géwél la yàlla may ñëpp toog mu jël micro di wax. dëgg la ku ko bu ko fi def dañ naan lu la lu ko daal. waaye géwél rek la yàlla may loolu. dëgg kon loolu géwél war koo yàq mooy ku ni géwél muy wax. dëgg la muy wax na war na wax lu baax. dëgg la adduna mu benn solo. dëgg la Pape adduna jeex na ba pare. la su baree jeex bu newee jeex. dëgg la waaw na rafet. dëgg la te dafa war a rafet ñun ñëpp. dëgg la ñun ñëpp mënu war tey ji man mi toog may njëkk a conseil sama bopp na ma naan man mii waruma wax leneen lu dul safaan lu dul lu baax. dëgg la waaw dëgg adduna loolu rek ma baax moo am solo dëgg la mm. ñu gis ni foofu tamit ba tey fa laay des euh, Mame Soda Bousso nekk na nit koo xam ne euh, par rapport ak ay temps da nga gis ci chaîne yi lu bari. Mm. mais léegi mu mel ni dafa xaw a mu mel ni léegi dafa dafa xaw a méfié wu wala da nga tiit léegi ci jamono ji. waaw kii wu ma sax ndeysaan Fass laa juddoo fa laa màggee. dëgg la màggee France. Mm-hmm. walaay tim walaay walaay ah walaay cëgin dafa yombul kon ma cëgin waaye nit day am day dem ba ci yàgg. Mm-hmm. xam nga jamono yee passé. Mm-hmm. sama yaram dafa xawoon sutante maa ngi sant yàlla. dëgg la donc dafa am foo xam ne boo fa jaaree. Mhm. da ngay def nank rek. Mhm. mi-temps yàqul match bi. dëgg la waaw football bi. dëgg la mi-temps yàqu ko. dëgg la waaw bu nu paree la bii ya na ci am. dëgg la waaw moo tax. dëgg la wàññiwul dara. Mhm. maa ngi ci la ma ne woon ba tey. waaye xaw naa dal tuuti. waaw rectifier. ñu day rectifier boppam. waaw dem ba ci yàgg toogaat xoolaat. rectifier sa bopp. jàllaat jàllaat ci leneen ndax ñun li ñuy dafa yombul. Mhm. waaw dafay quelque chose boo xam ne c' est pas le dafa yombul. Mhm. te booy boromi mbokk. Mhm. ñu xale yàlla nattoonu. ñu am tuuti tur. dëgg la war nañoo seet bu baax la ñuy def. dëgg la donc euh, loolu rek la. waaye ba léegi maa ngi génn. mais génn bi bariwul noonu. dëgg la waaye maa ngi fi ku ma yëgal ma dem. soxla bu ma war a am damay dem doxi ji ko. dëgg la bu ma amee lu ma war a def dinaa ko def. dëgg la waaw dëgg la foofu noonu laay ñëwee ci sa diggante ak artistes yi. Hmm. yan relation nga ñoom. waaye ñoom ñëpp jàmm laa si ko ñoom. dëgg la ku ci xewle defante nag ñoom nag lu baax. Mm-hmm. ku ci le mm-hmm. boo tegee archive yi. di mm-hmm. gis fi ma jaar ak ñoom. dëgg la jox naa leen sama présence. ndeysaan bu jotee nga xam ne dañoo soxla yeneen. Ah, def naa ci ba tàyyi nag. dëgg la dëgg yàlla. dëgg la def naa sénégalais man mënewuma di wax loolu. waaye gis nañ. dëgg la xam nga artiste nag léegi li ñu bëgg a jëlee tur léegi. ñu ngi bëgg a utee. dëgg ñun ñoo war a bokk lépp. dëgg la léegi suñu jamono ñun dafa métti. dëgg la li ñu tombee. Mhm. te jaru ko it. dëgg la déedéet. dëgg la ko armée yi amul aar. dëgg la déedéet. ndeysaan déedéet jaru ko. ndeysaan donc ñun tamit ñun ñëpp ñuy góorgóorlu rek. ñu mhm. bokk li ñu bokk. Mhm. ñun ñëpp ñu bokk parce que aar bi léegi vraiment. dañuy wax aar bi nii aar ba naa mais dara. dëgg la li fi newoon daaw géej ñoo fi newoon ba tey. dëgg la ñun ñaay changé rek. waaye ba léegi culture mi ngi fi. turu culture rek. Mm-hmm. kon ñun xale yi ñu war a góorgóorlu bu baax yéenante jàmm. Mm-hmm. te boo seetloo artiste boo fi tudd. Mm-hmm. lu ma mës a xewle man jug naa ci man Sodou Bousso. dëgg la ku ci tudd laa wax. nga ndey ba ci suuf. jug naa ci defal la la ma la a def boo ko soxlaa la dama leen gënal sa ay yëf. ndeysaan pour bëgg rek ñu am ndam te sama yoon newu ci. ndeysaan waaw moo tax léegi bari na yu bari yoo xam ne tam. xaw naa di tëddi bu baax am ñu ma doon àndal aussi. yàlla jël leen. muy Pape Bool. Kayra Mbaye ñoo ne woon samay nit ñuy samay nit xam te ànd dafa fort. ñooñu tegloo gaañu. Mm. ma nekk ak ñoom te ñoom rek laa doon àndal. Mm-hmm. waaye daal ñu noonu rek. waaw mm-hmm. waaw lépp mën naa bañ a mën naa bañ a ñaaw. Mm-hmm. te du bokk lépp eh, diiran sànq maa ngi koy dégg ci say biir wax nga ni dañ fi xawoon a tëdd tawat est-ce que bi nga tawatee artistes yi nga xam ne daan nga leen defal lu baax wala teraanga. noonu loolu man góob loolu bébé benn solo xam nga ñi la war a seet rek seet nan la ñi la war a seet. Mhm. pap seet nan la. Mhm. loolu moo am solo am na ñu ma seet ah ñu ma war a mhm. seet seet nan ma. maa ngi sant yàlla bu baax. waaw mhm. man mere wax jot moo amul. Mhm. Mhm. nee na li ci ñëw li tam amul jot. parce que siwul woon noonu. man ku jënk sama bopp laa. waaw sant rek li ca war a ñëw ñëw nañ ca. loolu sant boo xam ne góorgóorlu naa. dëgg la man damay bëgg loolu. dëgg la man tout le temps damay bëgg bopp. ndax li ma bëgg loolu. dama bëgg jom. dama bëgg góorgóorlu. dëgg la dama bëgg waaw kumba. dama bañ ñaw. asgoor day bañ ñaw. dëgg la te loolu dafay góorgóorlu dafa am loo xam ne bu la yàlla nee dimbale yow rek yaa koy wéete. ñu sant bu baax ndax am na ay xarit ñoo xam ne su ma lépp la ñu sama jege laa ñu yàlla moom leen hmm. te man defuluma yàlla loo xam ne war na ma fee baax dëgg la waaye maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax dëgg la waaw dëgg la mu mel ni damay des ba tey ci sa ci sa personnage hmm. nit koo xamante ni tey euh, foo ko gis rek ñëpp naan e maman Soda ñëw na mu mel ni dafa xaw a raar ci nitu nit ñi loolu dafa doon loo xam ne da ko ko ne nit ñi wala dafa doon parce que ku la fekk sa kër tamit naturellement noonu nga mel <laughs> waaw hmm. waaw nag man yëguma dara pap man nag mm-hmm. yaay fàlla rek mm-hmm. li ma gën a bañ ci àddina nag mooy yéegal mm-hmm. waaw man bëgguma loolu man daal bëgg naa nit bu oyof bëgg naa nit buy wax ak nit ñi bëgg naa nit boo xam ne daal vraiment waaw man góoma yooyu waaw góoma marque góoma yi xew te monte ndeysaan walay xam naa naka la waaye daal damaa bëgg daal la simplicité c'est de l'art waaw li gën a ëpp solo daal mooy bëgg naa bëgg naa simple bëgg naa am ak ñëpp jàmm maa ngi insister sa loolu ndax la vie gisatuma fi dara loo xam ne moo fi des ba nu war de ñaawoo. dëgg jën yi jeex na ma caat maa fi des. ndeysaan. te bu nu deful ndànk dinañ gaañu. dëgg la. te ñoom moom réew mi. dëgg la li ñuy xale xale yëpp am xale yoo xam ne actuellement ñooy seen kilifa. ndeysaan waaye ñoom ñëpp dama leen wax dëkk mm-hmm. lool moo baax. Mm-hmm. waa àddina mu benn solo. dëgg la waaw tubaab ba loolu ngi wale woon noonu la vie c'est une chaîne de théâtre. que chacun joue son rôle et disparaît. ñi fi nekkoon nekkatul fi coon sama waa dem na. ndeysaan. keneen ak keneen ku ci topp kenn xamu ko. dëgg la jaru ko ah jaru ko. dëgg la jaru ko ku ne yaa ngi jël sa wërsëg. dëgg la yaa ngi def sa yëf. dëgg la waaw moom ñun ñëpp mën nañ bokkalante on est des collègues. Mm-hmm. tey ni nga jëlee sa collègue journaliste boo xam ne tey fay war naa am benn <coughs> appareil boo xam ne amu ko. Mm-hmm. beneen xaritam collègue am abal ko ko mu filme dëgg la bilaay du ko te du ko wàññi dara. dëgg la mosu ñun ñëpp ñoo war a bokk lépp. dëgg la. wara a rafetal lépp li may wax ni noonu laay jëfee. dëgg la man xam naa ci dara. xaw ma wax lii ak rafetal. parce que loolu la fi xew. dëgg la habillage ak peinture la fi mhm. nan wax li fi ne te ñun dañuy wax ñu koy appliquer di ko jëfee. Mhm. waa te mag ñi yërëm xale yi. Mhm. magu artistes yi nañu xale yi. dëgg la xale yi itam nañu am yar. ñu fexe ba mag nga yërëm leen. dëgg la ndax mag balaa mu la yërëm day fekk nga am respect. dëgg xale bu amul respect mag du la yërëm. dëgg la kon nag mag ñi tam dañuy baal yërëm xale yi. dëgg la waaw tey sa relation ak ak ak ak ak Modou Bol naka la woon. Pape Bol waaw ñun samay rakk lañu. Mm-hmm. man la may ñoom fi lan dëkk. ndeysaan ñoom ñoo ma gën a xam sama kër. Mm-hmm. ñoom. Mm-hmm. ñoom ñoo gën a xam sama kër fan la suukari ne. fan na lii ne man xaw ma fi dara. ñoom ñoo ko xam ñoom fi lan dëkkoon. fi daanaka bu ñu deful dara. demuñu programme fi la ne yéen ba guddi. ba guddi léeg-léeg ñu bëri sa ñoom fanaan ba mm-hmm. bir set ñooy ànd ñooy def ñooy lépp mm-hmm. waaw dama projet nag ñoom ñu doon sama rak mu takk jabar may ma njëkkee yooyu yëpp defal na ma ko waaw keneen ki tam di suma mag muy Kayra Mbay mm-hmm. foo tourné ñun ñaar moom kooku moom bi mu dee ba tey sama dama dama tundum oh. kooku dafa ma bëgg kooku duma amaat sax ku ma bëggee woon noonu kooku kooku kooku dama mag j'ai vraiment une grande perte kooku mag la woon boo xam ne bu mu saan dem ci mbooloo sax balaa may dugg moom may xoolal nu may jaaree ba pare mooy xool xoolee mooy xool yëf tey mu manqué la waaw mu waaw waaw mu gaañu. Mm-hmm. di soo mag joo xam ne vraiment sama lépp la Serigne Soga Aliou Ndiaye. Mm-hmm. waaw suma mag suma xarit. Mm-hmm. su ma lépp la. suma lépp yàlla na su ci kawam te yàlla jéggal leen. mu mel ni sànq ci biir wax da doon wax ne artistes nañu joxante nañu nañu joxante cër. mu mel ni daanaka léegi loolu bareetul ci artistes yi lan mooy problème bi label yi la wala staff bi la wala lan la. waaw man nag man comme ni may fonctionner man moom. maa ngi ci barki démb ak démb. Mhm. man ay label ak ay yooyu yëpp deuxième la. Mhm. label mu a du dul enregistré la. Mhm. jikko ji nga yore bay enregistré def sa enregistrement yàq yóbbaale ci label. dëgg la donc on doit vraiment. ñu ñëpp se réconcilier. bokk ndey bokk baay. mooy sama waxi ëllëg. mooy sama waxi tey. ndax addina mu benn solo te aar fii la yam. boo demee ci armeel Yoff ci ngay xam ne ne aar fii la yam. yàlla loolu am fa. kon nañu góorgóorlu ñun xale yi ci Mm-hmm. li may wax man maa ci juutu man sama bopp laa ci jiital. Mm-hmm. ñu seet li ñaaw tey ba rafetal ko. Mm-hmm. li ñaaw ñu jug dox ko. te wàññi. ay gros mots ay yooyu c'est pas l'essentiel. dëgg la non non non non ay nit ñu baax la ñu. dëgg la ñu baax ñu jur. bu topp yi xew. dëgg bu ñu topp yi xew ba waxoon naa ko sama interview. ne leen ba léegi nitu valeur yaa ngi ci réew mi. bougé wu ñu changé wu ñu. ñu daan lu ñaaw ñu ngi fi ba tey. ñaar ba jàmbaar fakk tëdd yaa ngi bañ ba tey. donc nanu góorgóorlu mm-hmm. am yuñ fi bàyyi yoo xam ne archive ëllëg yi mm-hmm. tey boo tegoo léegi archive ñi daanaan di fi newoon da nga gis leen kon ëllëg war nañ fi bàyyi loo xam ne bu xale yi ñëwee mën caa jaar dëgg la ay aar ak yooyu yëpp deuxième la rek dëgg la mais foofu noonu jàppoon ni tamit des fois réseaux sociaux yi ñooy gën a yàq société bi parce que des fois du ñàkk nga gis ci loo xam ne dina la xaw a metti daal waaw mais parce que loolu lay wax xam nga sànq maa ngi ko njëkkee ci yow. bi nga ñëwee sama doom gi dana pap dama bëgg rek samay wax nañ ko génne. dëgg la nga seet yàlla que moom nag site bi na seet yàlla rek tey seet. li mu nar a yàq moo gën attitré loo xam ne ça attire les gens. dëgg la pour les vues. dëgg la te yombal xiyam. Mm-hmm. loolu amu fa. dëgg la waaw ak tooñ baaxu. dëgg la kooku réseaux sociaux yooyu yëpp nañ ci wax. dëgg la réseaux sociaux yi si nañ ci wax. dëgg la nañ ci wax nañ ci wax. Mm-hmm. nañ ci wax nañ jug ci rafet. Mm-hmm. te réseaux sociaux yi bu ñu jugoon euh, jéem a am loo xam ne ñu koy xeex ñu mën koo dinañ koy mën a jàppale. Mhm. tey lii ñu dugg. Mhm. ci réseaux sociaux yi defoon dinañ ñu jàppale. dëgg la ñu bañ a jël kee kaabee. Mhm. ñu wax ja demande loolu c'est pas loolu du àddina. la loolu du àddina. dëgg la loolu du àddina man du ma ragal de. déedéet. <laughs> waaye dem naa ba ragal. la. lu waral lu waral lu waral loolu. waa asko da dem ba ragal. loolu dund yi fi newoon tey boo fekkoon tey yaa ngi koy wax léegi maman Sodo Bousso. ba may yéeg ak dama am dama am chaleur. dëgg la man dama yëngatu. Mm-hmm. yooyu yëpp ndeysaan day jéem a àdduna. Mm-hmm. yàlla day maye lépp. Mm-hmm. waaye day nangu lépp. tas góor day dem ba ci yàgg day day day ñàkk boppam. dina am moment boo xam ne tey li ngay def benn xale ngay yónni mu la koy defal. dootu la ko amati jot ba. dëgg la dootu fay dina am boo xam ne tey jii sa directeur dina def leneen. ut benn xale bu mu fa teg mu koy defal ay yëfam day bëgg rek loolu gën a dëgër moo mu toog. Mm-hmm. na noonu la c'est une mm-hmm. étape. Mm-hmm. étape boo jàll da ngay dépassé beneen étape. tey dañ fa nekkoon di rëj di jéeg di tëb di def a yëf ak moom léegi déedéet. ñu gi jëm si mag nànk-nànk. waaw ñu ngi yedd suñu bopp nag. dëgg la di góorgóorlu bu baax. dëgg la nit ku baax. bu doon doomu nit ku baax dafa war a yiw. doomu nit ku baax dafa war a correct. dëgg la dañuy foo ñun ñëpp di tëlli tëlli ba après. nga di dellu si waat nag dëgg la suñuy nag mooy. am personnalité. Mm-hmm. am fula. Mm-hmm. am fayda dëggal sa bopp. Mm-hmm. te feeñal sa liggéeyu ndey. dëgg la waaw ñu bari ci àddina seen ndey liggéey nañu waaye bu nu màggee ñu ngi fexe ba di ko yàq. dëgg waaye booy ay toppee rek di toppee rek doo xam ne sa yaay liggéey da ngay gérer sa bopp. lijjanti sa bopp nag gérer bopp nag am personnalité. Euh, boo ko amul nag jéem Mhm. am na nag les idoles yi fi nekk ñoo xam ne war nañ leen roy. Mhm. loolu mooy àddina. ci foofu noonu laay ñëwee ci relation yaay ak doom mu mel ni yaa ngi koy wax léegi ci biir wax yaay ak doom nan la ñu war a comporté woo. doom fexe ba am ñaanu waajuram. Mhm. moo leen defal suñu waajur yëpp. fexe ba ndey. mu gërëm doomam. moo gën a wóor. ñaanu waajur moo gën a wóor lépp ci àddina. dëgg la. téeméeri sëriñ bu ñu la téemee amoo ñaanu waajur mënu laa ñaanal. dëgg la. yàlla dafa gërëm waajur dëgg la ku gërëm ñii toog fekk nañ coon sekk defe naa wax na loolu dëgg la soo waajur gërëm mm-hmm. yàlla la dëgg la amul tànk gannaaw dëgg la nga fexe ba sa yaay ne la waa dëgg la ëllëg dootoo dégg wu ndeysaan doom day tontu ndeyam ndeysaan xale yi nañu góorgóorlu nag teral sa ndey nag fonk sa ndey ko gën ndeysaan may sa yaay milliard mm-hmm. saaga sa yaay moog zéro yam mm-hmm. da ngay respecté sa sa ndey fonk sa ndey solo mais des fois du ñàkk ci coow am ci diggante yaay ak doom. waaw mais damay doom na muytu loolu lu jege laale. Mhm. ñëppay am yaay. Mhm. yaay ju a bëgg bëgg la rectifier bëgg nga baax ñun suñu yaay def nañ lu ne. Mhm. daaw bu moomu sànn wayaa ni. dix heures du ma fekk ci dëkk bi. te bu ma ñëwee bu ma yeew damay góorgóorlu maam dama koy indi. def éducation ba xam doom ju neme ndeyam. déedéet. doom warul ñeme wajuram. déedéet. déedéet sama ñoom suñu wajur duñ leen ba dee ñeme wuñu leen. tere nan nu ñu digal nañ nu li ñu digaloon def nañ ko. Mm-hmm. te gën na ci ñun. waaw moo tax wajur paap mooy lépp. ndeysaan xale nañ gën a fonkaat wajur. ndeysaan mooy lépp mooy sponsor. ndeysaan sponsor officiel muy wuy ñaanu wajur. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. ñaanu wajur émission ba amoon sponsor day weet. dëgg la sponsor officiel mooy da fexe ba sax day sponsor. ndeysaan foo dem day feeñ. waaw moo gën a wër kaw. ndeysaan waaw moo gën a wër. foofu noonu laay ñëwee ci sa ci sa ci sa diggante ak ak ku ne xam na seen diggante. waaw ak artistes yëpp mais dama njëkkee ci Waly waaw waaw waaw moom danoon njëkk ci moom moom danoon jiitu ci moom mhm. moom bi ma ko wax yaa tey defal la neex def ñu si côté boobu mi ngi soog a door dëgg la te tout début tout début est difficile la booy dugg début ki la ñi la jàppale ba nga samp loolu loolu loolu c'est c'est inoubliable mhm. loolu nit du ko fàtte te moom fàttewu ko mhm. mu ñu bokk maam di sama doom fonk ma lool bëgg ma lool aar boole wunu dereta nu boole waaw moom moom ci yëfam dañ ci contribuer dañ ci jàpp dañ ko wéttali mhm. booy soog door da ngay soxla ko la wéttali mhm. wéttali nañ ko ci ba mu ko bëggee dëgg la kon lii bu ñu gisee tubaarkalla ñaanal ko mhm. wax ak moom la nga koy wax xam nga sénégalais yëpp toog ma ko defal lu la neex la yaa sa maam a ngi ñu sécurité ko loolu loolu milliard fay ko dëgg la kooku deret la ak mbokk dëgg la te moom na ko sekk ñu koy ñaanal yàlla defal ko jàmm bu baax dëgg la mm. mu mel ni foofu noonu relation bi nga amoon ak way juram boo di coon yàlla na ko yàlla yërëm moom nga continuer ak doomam ba tey waaw moom à la mhm. moom dafa ma bëggoon mhm. soo yaa ngi teg léegi yaa ngi yaa léegi teg mapenda way bi may way waaw waaw ñoom askan woowu ci ñoom laa bokk rek daanaka coon mhm. moom dafa ma bëggoon rek boo ko waxee mu ne ma da jom ndeysaan ba may woo loolu France en 2006 la boobu waale wayewul ndeysaan 2006 la ma way way woo may jooy Sénégal yëpp bëgg ko ba pare feccaat moom mu bëggoon ma nag sama xarit am Mm-hmm. bëggoon ma lool sekk. Mm-hmm. fonkoon ma lool. Mm-hmm. am jom amoon yéene ci man. ndeysaan waaw nee na benn yéene rek la am. muy bés bu may maye. ndeysaan ma am borom kër. ndeysaan kooku daf ma bëggoon yàlla na suuf ayib ci kawam. allahumma amiin maa ngi koy ñaanal léegi uh-huh. léegi nag dañuy ñëw ci comme li nga wax ci famille boobu moom nga bokk te it quelqu'un nga fa. ñu gis fan yi am na ay yoo xam ne mu ngi circuler ci réseaux sociaux yi. xaw a laal famille Faramareen yooyu. vidéo yooyu bi nga ko njëkkee dégg en tant que yow ngay seen yaay naka nga réagir. yàlla xam ne ko gisuma sax xaw ma sax vidéo ak gi xew mhm. waaw la ma cee wax rek mooy ñoom it nen lañu mhm. xam dina am foo xam ne pap problème bi mbokk mbokk koy arrangé dëgg la problème bi mbokk ku ne am nga mhm. mi susu mi susuta fii ku fi nekk am nga sa yëf benn famille ku ne am nga sa yëf fu ne lay suusee waaw yaa kebete kebete yaati yaa mun tabaar xaaja fële dëgg la dëgg la problème bi mbokk. Mhm. ay mbokk koy arrangé. dëgg la du ay jàmbur. dëgg la dëgg la ñoom it nen la c'est leur famille. dëgg la et famille affaire famille c'est sacré. dëgg la xam affaire famille ndax man bëgguma kenn dugg ci sama famille. dëgg la loolu laay bañ a dugg ci famille jàmbur. moom. la mu mel ni sax ah. nekkul ni dañ ciy dugg mais du ñàkk ni comme fi may waxee mooy que yow seen yaay nga euh, fan yee paas ñu gis mu jaay sekk génn doon dal ci kii di waali Euh, yow bi nga seetaanee loolu est-ce que tey yow ngay seen yaay parce que man fekk naa la soirée Sidi nga jël micro bi ni man seen yaay laa defar rek moo ma war moo tax ma bàyyi sama yite ñëw. bi loolu noonu amee est-ce que dox nga ci ay jéego. waaw déggu li ma la expliqué Pape dana ci wàllu boobu man affaire famille sama yoon nekku ci. Mhm. nit du la may lépp nga jël ko. Mhm. ñoom am nañ seen i yaay am nañ seen i tante am nañ seen i bàjjan. Mhm. ñun duñ ca a dox. waaye am na loo xam ne daf ñoom njaay laa la fa caro gañe ñoom ñu moom seen yëf ñoo koy njëkkee mm-hmm. du dëgg mm-hmm. seen mbokk yaa ngi fi ñëpp ngi fi mm-hmm. donc famille c'est sacré damay xaw na tuuti ci famille jàmbur yi waaw ci ñoom laa bokk waaye ma ci seen famille vraiment ren leen ñooy sama deret man jëri-jëri laa ñu bokk seen lépp jaxasoo am na seen i mag yi tubaab kala laaw la cet yàlla na yàlla di ma leen ñaanal mooy li ma mën mooy man dama Mm-hmm. seytaane bi leen jàpp ak cat bi mm-hmm. yàlla na leen teggee ko mm-hmm. ndax cat dina ñëwee nu ne te ñoom ñëpp kenn bonu ca kenn bonu ca waa te cat mën na ñëwee nu ne te yu bari cat la rek waa cat ba jàpp cat day jàpp famille yàlla leen yàlla ba yàlla defal leen ay xale lanu man jaay na góorgóorlu xale la waaw na góorgóorlu moom tam xale waaw xale la da dara sax moo ko wax loo waaye bëgg na góorgóorlu. Mhm. Waly góorgóorlu na. Mhm. na góorgóorlu. Mhm. Bambali góorgóorlu. ñoom ñëpp góorgóorlu. góor fii ku fi da nga góorgóorlu man aw ma benn mbokku artiste bu ma jàppale man. man damay góorgóorlu. soo dugg soo merew ma kenn. ni ma waroon jàppale kenn ku ma ci merew ma kenn déedéet. ku la mën a jàppale jàppale ko bu ko meree. góorgóorlu. boo góorgóorlu rek def sa yëf. surtout. non il faut il faut dans la la vie c'est un combat. Mhm. bul mere kenn. Mhm. def sa mhm. kese. maa la wax li so gisoo. damay góorgóorlu man. waaw. bu bul mere kenn. ku la defal nga defal sa bopp ku la defal nga defal sa bop waaw woy wi jeex daal. fexeel ba góorgóorlu ca. waaw ba bul Mm-hmm. dina baax mm-hmm. ku sañoon bu ne nag ku ne nag da nga bëgg dara mbaa nga def dara mais góorgóorlu mm-hmm. xale bu ñu yàkkamti kii vivra verra góorgóorlu rek kii vivra dara yombul ñun ñëpp yaa ngi jafandu yaa ngi tëppatalu am na fu ñu jaar mbapat nanu mbapat lépp dina ñëw waaw boo amee sa jom doo dépendre ci kenn déedéet da ngay gérer dëgg man merew ma kenn man merew ma kenn ku ma jàppale man waxuma ma dëgg la man yi ngay lim yëpp xaw ma ci kenn seen kër dëgg la déedéet damay liggéente góorgóorlu am li sa yaay ku ne sa yaay ñaanal. tubaab mhm. feeñal ko. Mhm. Mhm. bul mere kenn. dëgg mu mel ni ñu ngi may signaler ni liñ ma mën ci ay waxtu jeex na vraiment ma amoon contentement tey nag maman xam naa ñu bari nag dinañ xaw a jaaxle ni ni tey ah Ablaye tey émission bi ni mu ni mu calmé nii maman damaa jël hors antenne. <laughs> tellement mais loolu baax tellement waaxu. ab non Ablaye loolu baax gis nga àddina <laughs> fay sa loolu la sant. dama bëgg site bi barkeel. <laughs> Ah, gis nga luy luy wërsëgu nit rek. dëgg la bul bul bul bokk ci benn ñombe. dëgg la. fu leen tuddee rek. Uh-huh. loolu laay bañ ndax site bi peuple 221 sama yëfa. dëgg la te bëgguma ñu tudd leen di tari alam tara kay la bokk am <laughs> nan def lépp ci jàmm tuudu tuudu yëpp neex mu am personnalité. Uh-huh. bu bokk ci benn acharnement. dëgg la waaw kooku nit da koy moytu. dëgg la ko gérer. dëgg la waaye il faut bien parler poser bien les gens. dëgg la. ñu répondre la. yëpp am ndam. kenn du la jéppi. c'est la vie. c'est le Sénégal. dëgg la voilà kontaan naa vraiment maman ma Ousmane Seck waxoon sa mot de la fin ci bi. waa xanaa di leen ñaanal rek nag. Uh-huh, uh-huh. sama doom yi yàlla leen. amiin fi ngeen bëgg Sénégal am jàmm. amiin amiin boo ñu am jàmm yàlla musoon ci seytaane ndax mën na ñëwee lu ne. te uh-huh. li ñuy yëngu dafa doy waar. li ñuy yëngu moo gën a garaaw. waaye yàlla barkeel la ci des. 221 yàlla na ko dañ ko dégg ci daraja yonent bi yàlla defal leen jàmm. amiin waaw yàlla dooleel leen. amiin vraiment jërëjëf. amiin yéen loolu ci man la. Mhm. waaw kontaan naa ci yéen trop. Mhm. jërëjëf. Mhm. et le directeur Moussa Faye. ndeysaan surtout Bour Sine commando fen boobu. xale bo am jom boobu. Ah. waaw loolu da jar na nga xam ne moom dafa bëri jom. ndeysaan waaw waaw. <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax directeur joxe ah, la <laughs> mu ngi noonu ndeysaan moo nekkoon suñu invité mu nekk Mama Soda euh, nekk koo xam ne vraiment ay waxam ñëpp a koy xaar parce que nekk na quelqu'un boo xamante ni bu waxee rek bu waxee ren balaa wax ci déwén te lépp lu mu wax euh, maa ngi fàttaliku li mu waxoon euh, ba muy yéeg ci coon sekk boobu ñun ay xale lañ mais ba tey boo ko tegee da nga yaakaar ni li démb la kon nag loolu mën nañ ko seede ci ay waxam di ko jaajëfal di ko ñaanal yàlla sunu borom gën koo dolli jàmm gën koo dolli sutura fëggaat yaram bu baax a baax Euh, maman ñu ngi lay jaajëfal. di la wax ni kontaan nañu baax a baax. walaay benn bët toog leen añ nag. ceebu jën per na mbay jàngi. <laughs> kon baax na mu ngi noonu ah. kon nañ toog xaar añ bi maman jërë jëf di leen jox yeneen dig daje suñu yeneen émission fii ci People 221 jërë ngeen.